Sénégalais yi nee nañu wax sexe yi ngay wax foofu teg loolu rek laa am pour laaj. léegi nag. Euh, eh, mbay sexe dafa neex. Adja eh? balaa may ñëw ci waxtu bi ah. euh, moo tax gars yi xam ma di. waaw léegi dafa moo tax mënu ko bàyyi. Euh, pour la ma koy bàyyi tamu neex. Sénégal dindi fi sexe. déedéet del wax waxu waxu yàlla waxu yàlla. waxuma waxi yàlla na xaw ma ko. lu ma jullee laa ci xam te maa ngi ci jaamu yàlla. mbay kër góor yi ay nelaw yóbbuñu fa suñu doom yi kenn galu leen dañu leen a liggéey. waa salaamaaleykum nan lañ leen léegi man la jël sa jëkkër kii di ko tiim mu lay riitam mbal ngay fayu muy neex nga am ci yàlla am ci yonent bi am ci doom ci baax am ci neex neex ba mooy problème bi man dañ laa war a daggal salaire ci réew di ma fay ci nguur gi may fayee ko salaire comme ñëpp ndax jigéen ñi daal. ak jéeg ju ndaw ji. Ah. ak jéeg ji sayoon te xamuñu ba génn ci say dem ba couvrir mbir mi ba laaj ci say man waxu góor ak jigéen ku am day fitam du ko a à cause de a Mbaye lan la. waaw muy waay li ngay wax seen yàlla. ah mais dama ne dama joxe ci sa jabar laa sëy. sëy laa wax de pour ñuy dégg fi may waxee. sama chaque jour dama naa samay vidéo ñi xam ba toog taxuñu mën a jóg. yaa ngi dégg xale yi bëgg di topp Mbodj Mbaye di defar seen i sëy ci Mbodj Mbaye man noonu laay waxal. lañ xam ba dem ba toog taxuñu maa jóg man xale yi laa woo. waxoo mooykat yi daal de. man ñi yor i jëkkër di leen bégal di leen tël man leen door fayu góor gu la ci tiim bu la nee tipp nee ko tipp tipp ba ca kaw. Sénégal wàcc nga am doom mu baax. yàlla kontaan ci yow. ah waxoo ñi nga xam ne dañuy mooy yàlla. déedéet néew ma kenn dama trouvé ji ko saw nga def lu la neex jëkkër man li may wax ci naa wax couple. même sama guru bi ma yor sax ñi sëy ñëpp xam ku bu déggee sama waxtaan xam ne man ci sëy laay man du ma victimisé dara ci ngoro dugguma ci ngoro sama yoon nekku ci sëy laa wax. mais naa da nga amoon problème say jëkkër sama wax sama jëkkër. waaw loolu lañ wax nee sax nee leer ak kenn. Ah, est-ce que wax bu dee tas naa tas kooku man la a xale yoo xam ne am na ci ñoo xam ne ñoo doon doon tuwaat tas fi mbay. dina loxo bu la loxo ngi toog doo des si loxo xanaa déggoo noonu ah yaa ko tas ko ndax ndax da laa bàyyi ndax ngay wax affaire sexe loolu la la mere parce man góor ñu bëri nañ ma naan ma jox ma numéro Modou Mbaye ba ban beneen góor bu ma waat tamit ci lii laay wax nga dund ceeb man ñu say loolu ñàkk ci dund ak man fase waat ba rek keneen jëlaat. mais lan moo tax kon mënu ko bàyyi ko. am di million ak équipe am. lan may bàyyi mbay. yow mën nga bëgg di mbay mën ngay topp ndax li wax dafa neex. <laughs> waaw rek mën ngay topp yow. man tax nga nga paru. ah bëri nga ci morom nag bëri nga ci morom de man góor ñee ma bëgg man. ak jéggi bëgg a bëgg a téye seen i ko mën ci dara. Ah? mais góor ñi lay laaj ay numéro lan moo tax ñu lay woo. dañ bëgg laaj jox ah, nga am nga am lu sa ci xam. Ya, bu nekk fii léegi damaa tas mais bu confirmé dama am jëkkër yow doxalal rek dina la ump de ndax maa ngi sëy wala sëyu ma dina ko est ce que xam nga ne sa jëkkër dem na waaye yaa ko parce que yow grand ngay wax ay ay ay yu ah yooyu dafa garaaw neex moo nga topp ba fii te góor gu ma loxo gu ma loxo ci toog xanaa déggoo ma man lamb ma yow tamit ma lamb bu atas tas naag tasuma daal maa ngi toog te bu ma tasee di dina xaaral sa yu Mbodj Mbaye ah koy waxal. bato dem bato tase. kan man la. mais mais mais affaire ci Cheikh Ahmed bi yéen ñaar yéen bokk Cheikh Ahmed yéen bokk bii wala gang wala. xam nga gang de. non non dañoo bokk lu ñuy waxtaanee rek. te Ahmed li muy waxtaan lépp ci diina la ko teg ko waxtaan tamit ni ko diine santaane mhm. l'islam fa la ñu tere ginnaaw mhm. nee na fépp foo xamante ni sa jabar mën na laa mbégte mën na laa jox plaisir dem ba ba mu des si ginnaaw te foofu ñëpp xam nañ ko amee si ne li muy wax moom moom moo ma tane sax dama mi ngi koy teg ci diine man nag li seetaan ku mu neexu sama ah. la gars seetaan <laughs> te dama xew neex na boo ci toogee gis sa bopp yëg sa bopp ba neexu dara nekku ci waaw waaw. mais mais mais nooy jëfee gaa yi sooy dox si mbedd yi ak si gerte lañ lay wax. man nag li ma jaaxal mbay li man nit Sénégal nee leen dañ maa bañ damaa caka damaa fil mais man mbay mënu maa dox ba daje ku ma bañ. man bu ma dugaloon ka apprécié. ah jigéen jigéen sax dafa a jaga. xaw ma lan la nag aha. merci beaucoup waaye boo mu sooroo sama ñetti mètre yi. daane sama càq bi fii. war a lëmbeen man boo jëmbaay ma dajee joteem bu kuur nga kenn bañu man. ba de man la yëpp bëgg. <laughs> lu fi may wax wax naa ko jaayoo produit jaayoo dara mais nga siy communiqué. man damay jaay produit bi de. Ah, jaay de. yokku baar yu ku dara. dëgëral la bu gàttee bu dëgëree bu guddee maa ngi ak moom yaa ngi man loolu laay liggéey damay yokk damay maye kàttan damay dëgëral jigéen ju waaw maa ci aay dama lay jox produit nga tooy xep waaw jigéen def ko seen waaw léegi nag booy naan li ma la jox da ngay tooy xeeb ba pare nag soo musul am doom wala soo bëggee am doom wala nga mës a am doom taxaw ñëwal ci mag daara ji solution rek la di liggéey lii ku ma xob barki démb benn maara dafa taxaw si ne góor ñi dëgërutuñu moo tax suñu taxee seen ci kër ay jigéen lañ ñun ay jigéen lañ la dëgër diis gann loolu moo ñu téye ci kër bu ma nekkul dañuy neex di toog neexuñu sunu zone dañuy dem suñu yoon ah. ñun lay dëgër daal téyewu leen. eh moo yor kër. moo yor ku tale dem toog man maa la wax nii. <laughs> moo yor kër mbay. góor ñoom góor ga ñoom. soo waxee ñu dégg la. mais góor goo gis mu jóg wax ñu koy sànni loxo. ndig laa baaxut moo fa newatul da ngay ah. <laughs> nag maa ngi toog. waaw. yàlla ndigg day dëgër. may ndigg day dëgër. góor góor dee ci néeg rek. daf say assis si baax. mu lay may yaayam ak baayam na nga yëg ni maire yu bari mën nañ la fii Sénégal. dañ koy waxtaanee rek mais maa ngi leen bu yàgg. dañ koy waxtaanee rek parce que neex neex ci neex bi la. mënoo bàyyi yi ngay def nii di ko wax di ko def suñu xel yi ñun xale ñun moom nañ xamuñu dara. Eh. bëgg non bëgg nañ la gaal yi yoo xam ne mais man ñun xale lañ bu ko def suñu xel man xaw ma dara. ci damaa bëgg ba ko rek ma xëy moom yóbbu hôpital ndax di may bëggee. waaw sama yow sama dëggal lii dëggal lii mise à part yi ngay wax yu baax yi yu baax loo ci gis victime xam na lépp yu baax loo ci gis góor lu yor kër ah. lan moo yor kër euh, xanaa dépense ah, déedéet <laughs> doo ma wax loo. lu yor kër mbay mi ah. mbay lu yor kër waxal. gañoo bu baax jeex na tàkk ndigg lu dëgër këj. mais mbay ma sam dëgërul. <laughs> ma ñëw ma dëgëral ko. maa ngi jaay produit yi. Ah, <laughs> te boo demee waaye nee na tas na tas na de. xam tas na. waaw da ngay tooy ah. bilaay tas na boo demee waaye tas na. loo wax nga bëgg prix. tas na. moom jëkkëram ba faw. Ah, yow xamoo luy géej gi rek jëkkër jëkkër ji bàyyi nga naan ma yow yow yow yow. Eh, loolu dama jëlaat après. yow xanaa keroog ñoo la yóbbu sa kër. Ah, pare. ah demal pause. ah la mi ngi ñëw. yow yow dama xamoo dara yow yow yow bi tef yow yow. toog nii maa ngi doon xam yaa tuuti kii <laughs> yow kii ba ma déggee seen kër yàggul. wax. bi mu rëqee ñun ñoo ko yóbbu këram. waaw kay bi bi am ku ko jël si. <laughs> waaw kay léegi luy problème bi. <laughs> lan mooy problème bi jëkkër dafa waaw yéen a jàmm yàgg l'essentiel daal maa ngi ak numéro vraiment maa ngi ak numéro. yow dañuy delloo. maa ngi ak numéro bul ci dara. mais sa produit lan nu mu tudd. produit bi am na jéggi dayo am na aljalaal. beneen bi nag mooy guddal réyal dëgëral mooy turam. benn bi dëgëral këcc mooy turam. waaw kon yow sexologue la. ah sexologue la. mais mhm. mhm. mhm. xanaa xamul dafa am na ñoo xam yàlla dinañ fee wàcce. ñii mu def leen ay jàngkatu alxuraan ñii mu def leen jàngkatu école ñii mu def leen ay woykat ñii mu def leen ay simbkat ñii mu def leen ay bërikat man yàlla moo ma teg fii ni ma jugal li jënt xale yi réero nga gindi leen wax leen mbirum sexe ni nga def ba tee sa jëkka jugal di li lii loolu laay dox mission boobu su jeexee ma bàyyi waaw te dafa neex bay li may dafa neex de neexu maa bañ de <laughs> man la gars yi bëgg man la ñuy war day na am artiste buy ànd ak ñun waaw soo uh-huh. waaw waaye yaay li ngay wax muy feeñ. monsieur Guèye ne sama am rek nee nañ rajo jël naa ko sànq mu ne moo la fay. a sama rakk la rajo li nekk ci moom ah, maa ko may fit man maa may fit. man maa ne ko. mooy jëntal canal bii nga xam ne moo woon fii. Uh-huh. fii ne moo ñu fi uh-huh. moo ko organisé. Uh-huh. ànd seeg waa 2STV. gars yi ndekkiñ ba suur añ nañ ba suur reer ba suur. kon boog di ñaan yàlla liggéey bi fii yàlla yokkul nag. loolu nag te réussir barke sëñ Bamba. <laughs> <laughs>